mooy Mansour Faye moo ñëw fii ci Touba ba mu dikkee ñu waxtaan ci xalaat bi yàlla def na ci sama ci man la jëkk génne ma wax ko ba ma ko waxee na ma ko nettalee rek mu ne ma sama mbirum bopp sama projet bopp waaye ba sama doxee dinaa ko yëgal président bu ma demee dinaa ci taxaw ma di ko topp moom ba yàlla def mu lijjanti ko ba mu lijjanti ko itam ba ñu war a tàmbali liggéey ba ba ñu war a tàmbali liggéey ba fekkuma ci Tuubaa moo tax ñoom yéen ñuy wax mbir boo ko boo boo booy défendre nit boo bëggee défendre nit itam da am information yu leer wala nga toppi yi ka ngay waxal ba xam li mu wax lu mu doon. ba ñu tàmbali liggéey ba suñ bés soroxaan ba ñuy wax sax yàlla def na maako ko fay ba ci turu suñ bi maa ko moom mi laa fa yónnoon fekk mu fi Ndakaar loo fekk man sori wax ma ko. ànd ak Moustapha Diakhaté mii tey moom la àndaloon fekkee Cheikh Mouhamadou Mountakha nekk njariñ bañ dikkee siyaare sëñ bi yandu fa jóge fa ñëw te xeer kon loolu sikki sàkku ma ko amu ci lu may may wax te bëggoon koo laaj weesu lu gàtt la mooy quartier yi mu war dem ci Touba ak yéen quartier la ak nga xam moo ko taxoon a jug muy jumaa ji li ko ndax bokk na ci mbir du leen ba ca des it eh, ñenn ñi tam dañ koo dégg ne dama ne dama koy woo téléphone. du ma jël demewut noonu mosuma ko woo mu ñàkk maa jël waaye daa nanguutal leeral liggéey bi ci quartier yi mu jëm ak nam dem weesuwul loolu loolu rek xam la ci des ko xam ndax néew na ci dëkk bi sànc yi loo ne jugewu ci sama xalaat wala bu jugewu ci sama xalaat tam euh, maa ko ànd ak ñoom te duma ma toog ci télé di ko wax ndax loolu ma fi bàyyi du lu may ndamoo itam ndax liggéey Sëriñ Tuubaa loolu ma fi bàyyi kii ma fi tegit loo tax mu teg ma fa kon loolu lu lu lu lu ndamu niw ca mm-hmm. waaye amu ci kenn koo xam ne mas naa wax ne defal naa fi nit intervention ci entreprise buy liggéey ci biir Touba mosuma ko def tam mën na ngeen topp yëpp ba mu jeex loolee la ma cay bañ mooy xam ne lu jëm si ci dëkk bi waroon naa ko mën de ndax sañ naa ko ndax ñi koy defal taalibe Sëriñ Tuubaa dañ bañ lu yàq seen liggéey waaye lu ko se lu ko moo tax mosuma ko def. te fasuma ko yéen def la ma ci la ma ci soxlaa xam mooy na liggéey bi tegu ci yoon hôpital bi ñuy wax mm-hmm. ña koy liggéey xawma leen siñ bi xawma leen wala bu ñu leen xamee xam nga musuñ fee ñëw leeral ñu ko mm-hmm. hôpital Modou Lo foofu seen bi yàlla def na bu ngeen delloo sa CRD yi fàttalu ngeen fa ma ko daa wax naa ko ay yoon mm-hmm. bañ bañ koy tàmbali dem naa fa waaye mu xamatuma ci dara trent bi ñuy wax 2013 laa ci tàmbali wax ak président ba moom ci boppam sax fu ma néew daana ma ci tooñ di wax ne pour tarantu suñ bés bi ngir xam itteel gi ma itteel ba ñuy tax xeroo dem naa boobaa léegi xamaatuma ci dara ba ñuy bi entreprise bi tàmbali liggéey bi vérifié wu ma sax fu ñu toll ñëwaatuñ ci man loolu du ma ko lijjanti kon ñoom buñ jaawale mbir yu bokkut wala ñu bëgg a défendre nit ba tax ñu bëgg yàq loo xam ne dañuy yàq xamuñ man loolu du sama cër jéem ma ko lijjanti loolu yëfi état la loolu mu ne dañu koy jéem a jàngal itam. buñ ko gënta xam gënuñu ko xam ndax état buy def appel d'offre entreprise soo ko gañe gañe ko loolu suñu yoon niw ci sax ñoom xam nañ du suñu jëf waaye nag Touba lu ñu fi def bu doonu tëri itam wala ay làmp ba ci làmp yi ci mujj làmp yi ci mujj bañ bañ dikkee ci sëriñ bi sëriñ bi ci man mi leen boolaat mhm. maa ko ànd ak ñoom la ma ca war a xalaat ma boole leen Abdou Lahad ka ñu dem liggéey ci borom dellu siwaat ci man ma xoolaat yema ca mën a dugalaat yema ca mën a sopp ma sopp ko dellawaat ko ci siñ bi nag wan ko lépp benn par benn ba sëñ bi xool ne nii baax na ñu door ko wéyal loolu moom liggéey yëpp noonu la doxee